nee nañu ba démb te xam naa ni DGE bu ñu xëyaatee lëndi danañ jotaat yeneen ñu ne ba démb si ngoon ba ñuy wàcc cent vingt cinq candidats ñoo déclaré ñoo dem jëli fiche <laughs> cent vingt cinq deux mille dix xam nga ñaata lañ woon quatre vingt cinq xam nga ñaata ñoo ñoo jàll cinq quatre-vingts lajj bii cent vingt cinq la te day doog tàmbali déggoo ma de day doog a tàmbali am na ay retardataires yoo xam ne lundi lañuy xaar pour dem dégg nga ak keneen ak keneen ma ne wópp dina métti dina yàgg cent vingt cinq candidats déclarés ne fu ñu jëm fu ñu jëm ah ñu si bëri nag dañu dem jëli fiche yi topp presse bi télé yi rajo yi site yi di naan candidat lañ ay candidat xuuxal lañ xuuxal xam nga lan mooy candidat xuuxal def bruit buzz ba jour ba conseil constitutionnel di jot DGE euh, di jot parrainage bay ne bokk nga wala bokko ah xam nga période boobu yëpp koo ne candidat la mënu laa weddi boo nee am naa cinq cent mille parrain kenn mënu weddi te fu ñu invité invité la ngay def bës dégg nga candidat xuuxal yi ñooy xaar ba cappaa ndaw ga ñu leen amuñu parrain ñu jël une semaine média yi naan dañ ma sàcc dañ ma sàcc dañ ma sàcc suñ si paree laaj ma candidat xuuxal yi li ñuy def ñu demee nag ba xam ni léegi jeex na mënatuñ bokk ah léegi nag ñu def déclaration dégg nga ne waaw man mii te gaa yi sàccoon samay parrainage waaw léegi man ànd naag sa Seck yaa ngi dégg sa sekk jël post jox la ci directoire bi moom tamit suy compter coalition am compter waale sa mouvement dégg nga ngay xoggale ko meeting bu mu def nga toog ca kaw yaa ngi dégg di xaar sa Seck bu gañee mu cër la dégg nga xam nga loolu système boobu dafa yomb am na ñoo xam ni xuuxa xuuxalkat yu mag yi nag xam ñoom lu ñuy def ñom dañu dem jëli fish de mais yalla xam duñ ko dem sax remplir xuxalkat ku xol kat yoy xaw nga moy ñan moy comme genre taala si lay non ma lay wax ku xol kat yu magi xolo dañuy dem taxaw jël parrain jël feuy di xaar amadou ba wol ah bu la woyé fa lay yem nax saay du kenn dootu la déggati déggoo ma de am may waa Benno Bokk Yaakaar yu bëri yu dem jëli ay fiche ay homme politique yu dem jëli ay fiche pour gars yi bàyyi si ñoom xel ne waaye mais grand bàyyi waaye bàyyi li ngay def bul bu si dugg waay mu ne mais man sama parrainage bi rek li mu si dépensé gum mat na quinze yaa ngi dégg ah def naa lii def naa lii waa ji ne la waa d'accord dama lay dédommager am 30 millions ngi nii bëggatuma la dégg dafal déclaration rek ne mën nga ànd ñoo ñooy xuuxalkat yu mag yi gis nga sénégalais ah ñoom traite la xam traite xoolal comme ay ambulant xam nga ambulant mu ne scolaire jotee day jaay saak ñu dem ba école ubbi mu jaay fourniture dégg nga korite ñëw mu jaay yére korite Noël ñëw mu jaay cadeau ambulant noonu lay demee ambulant par traite lay demee dégg nga par période lay demee homme politique yi par traite la ñuy def élection présidentielle mooy traite bi gën a mool mooy tabaski si tailleur déggoo ma dégg ci politicien mooy borom oto ci màggal yaay bañ traite la dañ si profité nag di fontoo suñu démocratie am na ñoo xam ni léegi transformé nañ seen bopp collecteur de parrain am na waaw collecteur de parrain am na métier la instant yi ñu ngi wër état major politique yi dañuy jël fiche yëpp dañuy jël bu Mimi Touré ah jël bu Thierno Alassane Sall jël bu Abdourahmane Diouf jël bu Khalifa Sall ah ne ko dañ lay utal parrain dugg fii dugg fii dugg fee fu ne ñu ut fa ay parrain ñoo taxaw ne la parrain yi day jaay de am lañuy woye les collecteurs de parrain déggoo ma de xuuxalkat yi xuuxalkat yu mag yi ak collecteur de parrain yi fa laa yemagum ah ak xuuxal sa monde xam nga luy xuuxal sa monde mooy ñi nga xam ni kenn mosu leen xam am na ñoo xam kenn mosu leen xam suñu demee seen koñ chef de quartier bi sax xamu leen non dëggoo ma de imam bi xamuleen leen bi ca église ba xamu leen nga woo président ASC e bu xamu nga woo organisation des femmes yi ki ko jiite xamu leen nga woo bàjjanu gox yi xamuñu ko kenn xamu ko mu dem jëli parrain woo site yi site yii tele yii ñàkk fayda yii ah def conférence de presse ne candidat la yaa ngi dégg ah gars yi génne ko tele benn yoon boobu moom jël na dosam déggoo ma de xam nga ñaari dose café kenn du ko jël la matin benn ngay dóor nga nekk walla moom jël na dose am moom moom moom doyal na de xam nga lu muy def image boobu lay jël rek di wër ko wax mu ne la gisoo ma <laughs> koo koy xuuxal sa monde dégg nga candidats yi danañ yegg deux cent candidats déclarés waaye parrainage bi mu ngi fi quarante quatre mille cinq cent jàpp cinquant neuf mille lañuy laaj dégg nga hmm, kooku du caaxande de est-ce que boo amee loolu ci nombre de parrain ah am nga dayoo député ah waaw waaw am nga dayoo député. député ay trente mille voix boo ko amee rek nekk nga député ñu lay laaj quarante quatre mille parrain ndax nit mun na la bëgg a votel doo xam foo koy fek mu dem rek votel la parrain moo gën a métti